baa ngi woy ci diwaanu Casamance diggante rebelle yi ak suñu soldaar si yëglekaay bi di le témoin ñu ngi xamle ni njiitu MFDC bi di Salif Sadio bu mbir yi euh, bëggee metti ci moom deful lu dul daw ci diwaanu Gambie euh, suñu jàmbaar yi dem nañ ba gis fi mu làkkatu woon ci àll bi ak njabootam euh, ñu ngi fa fekk yamba su bari ay gànnaay ci lim bu takku ay ndab ay euh, woto yu ñu sàcc ak itam ay euh, yu soxna si yi rek euh, di jëfandikoo ngir bégal seeni borom kër ba tax na suñu larme gi jàpp ni Salif Sadio foofu la dëkkoon ak jabaram walla sax ay jabaram maître Moussa Diop doon jiite Dakar Dem Dikk tribunalu Ndakaaru mujj na ko jox dëgg ginnaaw bi ko njiitu réew mi Macky Sall folliwee ba tax na nguur gi war na ko jox ab ndàmpaay bu toll ci juróom-ñeenti fukki million ci suñu koppar ci ay kàddoom mi ngi sant suñu justice di wax ni rek xamoon na ni yoon dina ko delloo li mu moom moom maître jóg Diop muy wéy rek di fàttali. ñu ngi ko dàkkoon ginnaaw bi mu waxee ni du ànd ak Macky Sall bu bëggee am troisième mandat nee na ci xalaat boobu mu biraloon ci la Macky Sall sukkandiku ngir wax na ngir wax ni rek nañu ko dàkk te bu ñu ko fay dara. xaru euh, yaa ngi woy di takkar naa si fii ci suñu réew rawatina diwaanu Kédougou diggante ci fan yu mujj ci weeru février bi ñu weesu ak euh, weeru mars bi fukki doomi aadama ñoo xaru foofu ci Kédougou bu si mujj àllarba bi ñu génn la am mu nekk nag ab góor gu am juróom-ñaar fukki at di wuyoo ci turu Kuddu Saar ñu ngi ko fekk mu xoj boppam ci ab garabu mango. Fédération sénégalaise de football di kuréel buy saytu football gi. gi ci suñu réew euh, mu ngi ñaawlu bu baax njuuj njaaj yu am jamono ji ci wàllum njaayum ticket yi euh, ñeel match retour Sénégal Égypte euh, talaata bi di ñëw rek lañu koy amal ay nag dañoo nekk di defar ay yuy niroo ak original bi di ko jaaye ci njëkk yu gën a kawe yu ko waa fédération bi di jaaye ba tax na kilifa yu nekk ci fédération bi génnee nañu bataaxal di xamal askan bi ni ticket yu baax yi ñu ngi koy jaayee ci butiku jottali yi mataar Ba di jëw riñ bu ñu dénk wàllum tàggat yaram ginnaaw bu ko Gaston nga tuddee làmbam diggante euh, Eumeu seen ak Bombardier delloo na ko ki nga xam ni mooy njiitu réew mi Macky Sall Euh, moom jëwriñ bi euh, mu ngi xamle ni bu dibeeree euh, douzième Guinée dina fa fees dell foofu ci arène nationale lépp rekk ngir wane ni jàmm la waa axlu làmb woote lépp lu munti am ndamu Sénégal la ñu desandi ci làmb boobu ba tey démb foofu ci CNG manageru ñaari mbër yi teew nañu fa ngir ñu amal rek tirage au sort si fu ñuy teg seeni cumbukaay Eumeu Sène moo mujj gagné ba tax na tànn na fi nga xam mooy zone A mu nekk nag ab bërëb bu jàkkaarloo ak bunt buy taskatu xibaar yi di duggee foofu ci arène nationale bombardier nag dina toog fi nga xam ni mooy zone B ci fàttali Eumeu bi muy bëree ak Lac de foofu la toogoon mu nekkoon combat bu Lac de Guiers mujjoon jël ndam li par avertissement match barrage yi ñeel coupe du monde 2022 dinañu amal tey euh, première phase yi Sénégal nag dina jàmmarloo ak Égypte ci ajuma gi bu fukki waxtu ak juróom-ñeent tegee fanweeri simili Égypte moo nar a dalal ñi nga xam ni ñooy suñu génne yi euh, seeni supporters na nañu fees foofu dell ci ker Euh, ba tax na waa Poste Afrique bu ñu laajee Matar Ba di jëwriñ euh, bu ñu dénk lépp luy jëm ci tàggat yaram fii si suñu réew lu tax euh, suñu doomu réew yi demuñu supporter ji foofu ci kër puus rek suñu génne yi moom Matar Ba dafa xamle rek ni doomu Sénégal yi bari nañu foofu te sax lu gën a am solo rek mooy suñu génne yi am xadar ak jom gu mat sëkk ngir jël ndam li Euh, ci fàttali Sénégal moo duma woon Égypte ci finaalu Coupe d'Afrique bi ñu weesu euh, looloo waral doomu Égypte yi euh, bëgguñu jamono ji lu dul fayu seen nguur sax digg na leen koppar yu takku bu ñu taxee ba Sénégal du dem Coupe du Monde rek lañu leen indiloon tey ci tënkum xibaar yi tolloo ak ajuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars di leen di jaajëfal di leen di wax itam ngeen wéy rek di abonné ak itam di appui appuyer ci cloche de notification bi ngir dara euh, bañ leen rëcc ci actualité euh, ñu ngi am mbégte bu rëy tey àndoon ak yéen euh, di ñaan rek suñu génne yi jël ndam li ba nga xamante ne suba incha allah dinañ leen indil xibaar yu neex.